inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa man yaxruj min beytihi muhaajiran ila llahi wa rasulihi summa yudrikhu lmawtu faqad waqa'a ajruhu ala llah inna lazina saarahu li xidmati falahum diyaara wastal jannati sëriñ Habibu di yëkkati kàddu ci tur Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi fi nekk sëriñ Tuubaa moom mi nga xam ne liggéey bii nekk di ko liggéey moom moo nu koy liggéeyloo sun borom mi dogal nag dogal ci ab dogalam tey jii am lu xew ci biir liggéey bi xew ci ñooñ liggéey bi di ay bokki taalibe yoo xam ne dañoo jugoon jaayante ak Serigne Touba ñëwoon ànd ak nun di liggéeyal Serigne Touba yàlla dogalee nag nu ne ci liggéey ba sun borom mi nga xam ne lu am mooma te sañ te man tey def tey dindi te kenn soñu ne ko lu tax nga def mu def ci coobareem ak kattanam ak sañ-sañam jëfandikoo ci ay jaamam la ko ca soob te muy lum sañ te du tàggu kenn te waxoon na ko ba yàgg nag kullu nafsin saaixatul mawt allazi xalaxal kon mbir la moo xam ne mu baaxoo am la dikkiin yi nag mooy wute ak saa yi muy dikk ak ni muy dikkee bi yàlla dogalee nag mu am ci takkusaan bi nuy woo Sëriñ Habibu nu bokk toog nu xamal ne nu am nañu eh, yàlla wàcce ab dogal seen kaw booba sax xaj na dogalu faatu ak séegut waaye dogalu jëyee ak si na fan ko yëgee tàmbali di ca ñaan nis ko si la nu woo xamal nu la ca xew booba itam la nga xam ne moom la ab jaam man daal dinañ koy tàmbali def muy jug dem ci ki nga xam ne mooy sunu kilifa di Cheikh Mouhamadul Mountakha yëgal ko ko ko ko bi nu ko ko waxee lim njëkk a waxe mooy ñooñu dañoo saxiit saxiit mooy ku dee ci xarab lislaam googu kàddu rek doy na sëkk dañoo saxiit la wax joxe ak ñaan yóbbante nu ci seeni bokk ak ñaan yóbbante seeni bokk dalu xel yóbbante seenu yóbbante nu ci seeni bokk mastawu yóbbu nañu seen bokk seeni bokk am njaal ci kaw loolu nag Serigne Habibu ak waa Touba ca kanam gépp di ci yëkkat seen kàddu ginnaaw boo xamante ne ki moom liggéey bi moom dem nañ ko ba yëgal ko li xew ba noppi Touba ca kanam di xam la ne li xew day moom yàlla suñu borom moo ko xewal te di ko xewal ci ku ne ku mu ci nun ci waxtu wam ko sàkkee ndax ku ne ba la bindee la la bindaale sab dikk kenn ku nekk bis nga fi nikk alhamdulilah bi alamin nag ñii seen bis dafa agsi waaye mu agsi ci ak seen wu taw feexe ak seen wu ànd ak ndimbalul yàlla ndax xëy na sa bakkan des ca mu ne su ëpp yaakaar amee su am yaakaar jug ëpp fañ jëm kon mbir la mu diis mbir la mu bette mbir la mu metti waaye nag mu sante ko yàlla ndax kenn du wees sa bis suñ demee wutoon ci nii it danañ demee ci neneen waaye bisub dem moom kenn du ko weesu li kulli ummatin ajal fa isa ja ajaluhum laa yastaaxiruuna saatan wala yastaqdimuun kenn ku ne sëb dig du avance minute du retard minute waxtu wa dig képp képp ca ku mu ci rek loolu lay nikk kon ñoom seenu dig dafa teew alhamdulilah bi alamin nag ba mu teewee ci fekk leen ci loo xam ne mënee suta faatu ci lu ko gën mënee suta faatu ci lu ëpp yaakaar ko mënee suta faatu ci lu gën liggéeyal sëñ Tuubaa kon ñi nga xam ne yàlla dogal na lii mu dogal ci ñoom noonu day ay jaam rek lan dañuy delluwaat lépp ci yàlla mooy li ma ubbee te suñu wax na lu dal seen kaw na ngeen ko wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye nag laaye jooju ma ci teg nga ne suñu borom daa wax ne képp ku génne sa kër dox wuti yàlla ak bi di def loo xam ne yàlla képp tax ak bi ba faatu fekk la ca la nga bëggoon am nga ko ndax da jot sab yoon Sëriñ Tuubaa itam ñëpp ñi nga xam ne gaaw nañ bu ñu ma wootee di ma liggéey danañ gaaw jëm ca liggéey ba na nga leen defal ay kër yu bari ca digg àjjana kon nag ñii suñ xel dal na ci ñoom ndax kat ay jàmbaar lañu woon moo leen taxa seen seen bakkan des ca kon ñi nga xam ne ñooy seen wayjur ñu ngi leen di mastaw ci turu sëñ Abibu ak turu waa Touba kanam gépp di ànd ak ñoom tiis wi di leen xamal ne bay boo seen xel dal te seen njoor rafet te xam ne liñ bëggoon ci seen doom yi de moom yàlla defal na leen ko ci ndax sëriñ bi moom képp ko yàlla booleek moom am nga taw feex waaye liggéeyal sëñ Tuubaa nga ne ca biir liggéey ba sa bakkan des ca loolu moom ndimbalul yàlla moo koy maye feex ju kayo moo koy maye waaye yombul ñëpp kon ñoom gannaaw dañoo xëyaloon sëriñ Tuubaa yàlla suñ borom mi wàccee fekk leen wàccee leen ci toolu sëñ Tuubaa ah ñooñu sant yàlla bu baax lañuy def ci ñoom xëy na dañu yàlla na sunu mujj rafet daal ba mel na seenu mujj bakk sëñ Tuubaa loolu rek lan ci mën a dolli waaye mujj jox rafet mënta weesu faatoo ci toolu sëriñ bi ndax bari na lu ma koy wax ci bis boo xam ne dafa toog njëriñ ba guddi mu jekk-jekk génn waaxu ba ci ay armeel yu ne woon ci ginnaaw mu taxaw ci fekk bi mu ne tëll bunt bi am na ku jox jox satala gi mu ŋàbb ko fekk mag ñi dañ daan def bu kenn day boof ci bunt ndax duñu xam bunt bu muy génne am ko mu jox satale gi waxu ko dax di waax waaye mu topp ci satale gi ba mu dem ba wër armeel yi ba noppi taxaw ne ko ana kii kooku ku wax suñu Omar Diba la mu ko mën a Omar Diba mu ne ko xanaa armeel yi moom ñi ñu fi suul kenn ko mas a liggéeyal wala kenn ku mas liggéeyal ko mas a nekku fi armeel yi ñu ñi fi suul xanaa kenn ko mas a liggéeyal wala ku mas a ko mas a liggéeyal nekku fi suñu Omar Diba ne ko ah loolu dañ mbàkke kumba yi de ko mas a liggéeyal nekku fi ku mas a liggéeyal ko mas a liggéeyal nekku fi ndax seen yuuxu yi moo taxoon mënatumaa nekk ci sama kër gi waaye bi ma fi tegee sama tànk lañ leen jéggal armeel yi suñu Amadu ba mu xëyee ñam ko laaj dañ ko ne ay séeréer yu tuubut lañ fa daan suul xamuñ jullit buñ fa mas a suul kooku nag kon ku ko nekk ci toolam ba faatu fekk la ja ah sam xel war naa da sa rafet sa njort seen yi way jóg seen xel seen xol war sedd ci li seen mujjug doom yi ndax bu ñu fi nekkoon nit kat xamuñ nu ñuy mujjee ak ñoom kon fii yàlla mu ak ñoom sëñ Tuubaa mujj feek ñoom ak mujj goofen mënu ko weesu kon ñi ngi leen ci mastaw di ko bokk ak ñoom waaye di leen xamal ne na seen xel dal te seen njort rafet ndax ñaanu sëñ Muntaxa gi ñu am kat amaane sax buñ demee wuti woon nii duñ ko am te ñaanal na leen seeral leen ne dañoo sax it te ku fi nekk sëñ Tuubaa moom lu mu wax yàlla fekk ko ci kon nag alhamdulilah bi alamina lañ ci teg di leen masaw di leen xamal ne Touba Ca Kanam fas na ko yéene ànd yéen ci lépp ànd ko ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk ñooy seen i ñooy seen i ñaale Touba Ca Kanam fas na yéene ànd na ñoom taxawaay bépp taxaw leen taxawaay ya ca wax di xam le ne liggéey bii itam biñ koy def yàlla dogal na biñ sëñ bi joxee ndigal daf noo boole woon nag suñ basum sëñ Abdou Khadir ñu jaar fi ñu a jaar fépp ba agsi fii biñ nga xamee ne yàlla dogal nañu boo xam ne tëli la waa asawun ñoo baaxoo di ko gas duñ ko laal ñoom ñoo ko gas biñ ko gasee ba noppi ban ñu xam ne liggéey bi daa war a wéy ñu war a wéyal liggéey bi ñëw nekk ca ca la dogal bi agsee waaye ñu xam ne dogal bu yàlla la waaye du càggante du càggante kenn ci ñi seq liggéey bi ab dogal nag moom faw bu jotee day agsi rek dogal moom faaw mu dog yàlla yàllonte xamees ko yàllante ñàkk koo xam waaye bis bi moom fu agsi faaw nit nit ki dem loolu rek waaye loolu rek moom te suñ borom jaarale woon ko fii te nag leen a dimbali képp tax nag ndax bu ñu nawtoon am ndimbal duñ faatoo ci tool bi sëñ Tuubaa kon loolu ñu xam le ne ak càggante wéralu ko ndax ay machine na ko doon gas gas nañ ko gasin woo xam ne tegu na ca yoon wa nga xam ne moom la seen xam-xam laaj ñu war koo def waaye nag yàlla miy dogal moom moo dikk ko dogalam muñ demutoon foofa it dem feneen nit demee na nu ne nit dem na ci lu ne nit teelu na fu na dem waaye dem ci daal dem goo xam ne fu mu demee ñu ne daa xëyoon ci toolu sëñ Tuubaa faatoo ci daal googu dem moom yàlla na ko yàlla tawfeexi la te a yàgg te ñu yàgg fi yàgg leen ñaanal di ma saw ñëpp di ma gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di jéggul jërëjëf